moom la yàlla jiital ñu kilifi lislaam yi bu ñu góorgóorloo lislaam gën a ci ñun lu gën a ànd gën a déggoo di julit di julit dëgg di taalibe itam nag bu ñu ko defee rek lii xam ne moo xam ci àdduna bépp muy ñëpp maas bëgg jàmm te xamuñu fuñ ko fuñ ko fuñ ko jëlee noonu eh, loolu bu ñu ko defee jàmm am na nu ko bëggee loolu nag bu ñu ko waxee ñëpp war ko gëm ndax sëriñ bi bu xool sëriñ bi ci jóg noonu bu doole bi mu dajeel di gaale moom ay at na mu gën a tiise na mu gën a tare lépp mu dar dar dar dar dar ko mu lépp jëmbal teg teg teg teg boromam ci ko ci ci kanamam lépp mu def ko te yàlla tax liggéey liggéeyam bu rëy liggéey ba ak ba ba liggéey bi ak si fii tey xaddamul toxu dee turuut kon bu la wootee jàmm ñu war ko gëm xaddamul li tax ñu ne wala fi xaw ma ñu wax ko noonu waaye man mel ne xat lu yomb a la jëf wala damm kon liggéey sëñ sëñ bi liggéeyam bu réy bii mu liggéey fa mu fekkoon yow lislaam moo di ba fii ñu toll xaddam dee tuut ah, loolu bu wootee jàmm dañ ko gëm kon nag moom eh, ngi tàllal sunu bokki jullit yépp rawatina sunu bokki jullit yi nga xam ne moom la moom moom la ñoom lañ dëkkal ñu ñuy sunuy bokk di sunu bokki jullit di sunu bokki dëggandoo ñoo ngi leen tàllal loxo bu baax a baax a baax jox nañu loxo waaye ñaari loxo nañ leen di jox noonu kon nañu góorgóorlu bu baax na diine dëggu ci ñun na lislaam dëggu ci ñun te nu góorgóorlu jéem a ànd te yàlla tax te ko defe lu nu namm lu nu bëgg lu nu bëgg rek mu am lu nu bëgg rek mu am gën